à CTV la chaîne des patriotes. mbokki internet yi dal leen jàmm ki nga xamante ne moo fi njiitu Pastef maanaam Ousmane Sonko bokk ci coalition Yewwi Askan Wi moom nag coalition boobu dañ ko infiltrer jusqu'au kooku lu tubaab bi naan infiltrer jusqu'au cou dañoo dugg ci biiram fas yéene koo jaxasee askanu senegal Sénégal rawatina kilifa diine yeeg kilifa aada yi bu yaakaaree ni ndigg sërëx yi jeex na ci Adji Sarr wala ak yeneen yi ni ñu ngi koy waajal leneen loo xamante ne dañ koy jaxase kilifa diine yi ak kilifa aada waaye tamit ñii di taskatu xibaar yi ñoom it dañ koo bëgg a jaxase la Ousmane Sonko bu ko defee ñu jaarale ko ci ñoom ngir ñu mën a wasaare yi lay saaga ak yi lay jëfi ñaaw teef yi ñuy tuumal ñuy di waa yeewi askan gars yi nag teelu leen bu baax ngeen déglu yi lay firnde. waaw asalaamaaleykum gars yi Mor naka mu si loo nekk na koy tey ça ok liggéey baa ngi dem bu baax a baax a baax macha allah macha allah parce que objectif bi mu ngi bëgg atteindre ko parce que lii lañ waxoon depuis le bi niñ on fait tout pour ñu ñu ñu yàq seen der waa Pastef ñu def lépp bu yàq seen der yaa ngi maa ngi déglu fan yi benn animateur. beneen animateur bu nekk 2STV muy naan pa waa Pastef ñooy saaga effectivement da ngeen war a des ci logique boobu na ngeen di saaga ku wax ngeen saaga nga filtrer leen mafia kàcc kàcc bi ku wax ngeen saaga sa xam nga objectif bi ñaar la depuis le début wax nañ leen ko depuis le objectif bi ñaar la saaga leen kilifa diine yi au nom de Pastef dañoo xam ne waa Pastef ñoo leen saaga saaga leen journaliste yi bu ko defee bu ñu amee bu ñu amee bu ñu yàqee bu journaliste yi yàq seen der benn dina wàcc seen dina wàcc seen crédibilité kilifa diine bu bu ñuy saaga kilifa diine na wàccee seen crédibilité da nga leen da da saaga fu mu gën a ñaawee da nga leen di saaga voilà waxal gars yi ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom Morlaay ñoom Basiiru gars yi nañ jàpp seen groupe yi nañ animé waaw surtout Mamadou Kane moom ñoom seen kur groupe bi moom affaire yi daal tàngul foofu na tàng na gën a metti na saaga yi gën a tar parce que bu ñu deful loolu élection bi di ñëw yeewu askan wi dinañu gañe te ñii bu ñu gañee bu ñu gañee man maa leen wax lii bu ñu gañee présidentielle bi jarul Macky Sall tudd ko te bu ñu ba passé Ousmane Sonko bu toogee fi ñun ñëpp prison lañ jëm Abdoulaye lu mu wax gars yi loolu moo fi am lu leer laa la wax. kii am kii Ousmane Sonko mii du waa du ñu baal de parce que luñ ko def dafa kii affaire Adji bi moom luñ ko munti def Adji Sarr bi affaire Adji Sarr bi moo gën a métti lu ko loo xalaat kon nag euh, na métti na métti saagay na gën a tar voilà sol leen yére Pastef wax leen pour Pastef xam nga ngeen bokk bokkul Pastef ni Pastef ngeen bokk comme ñoom ñu ne ñu contrôler seen militants yi saaga leen nit ñi. bu ngeen saagee nit ñi bu ko defee buñ kii ñu ne waa Pastef la dañ ñun dañ ciy seet wécc ba pare ñun dañuy arpenter plateau yi di gën a yàq seen dara ok kontaan naa ci de parce que objectif bi baa ngi bëgg atteindre. ASID TV la chaîne des patriotes.